Salam alaikum la mifa, j'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221, mais bien sûr la chaîne des news, des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc jusqu'à présent vous vous êtes pas encore abonné abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos alors gars yi tey nag dama ñëw présenter leen benn artiste rappeur boo xamante ne ni il est très talentueux et son nom tout simplement le Kao gars yi ba leen bëggee dégg dëgg buñ naan artiste complet Leuz bi bokk na ci lu tax ñu naan un artiste complet parce que artiste la boo xamante ne ni il est très polyvalent day way et en même temps day rap ba leen xoolee bëri na rappeurs yoo xam ne dañ leen di tuddee des rappeurs yoo yoo xam ils sont polyvalents genre dañuy way aussi mais boo xoolee ba ci biir dañuy forcer way bi parce que dalee na dab dangay ngay sentir ni carrément sax que ni rab lañ gën a mën ko way mais gars yi li ma leen wax nii ah Leuz mi am na chance boo xam ne bu wayee nga ni mooy point foo rap mu rap nga ne waa mais daam ki rap la gën a mën sax ko way xaw ma chance la xaw ma don la mais en tout cas il est très polyvalent et man nag remarque bu ma njëkk a def ci moom mooy voix bi mu yor da ngay sentir tuuti Jahman X ci bi dañoo xaw a niroo voix. à vrai nag lu tax ma découvrir ko temps dafa nekk di génne projet boo xamante ne ni c'est intitulé cofeel war a génn le 5 février 2023 incha allah donc yàggatul mais man déglu naa tuuti ci projet bi et fil naa ko à vrai dire j'ai trop adoré au fait genre yu ma jot a déglu ci projet bi man dama yàkkam di sax projet bi génn parce que projet la boo xamante ne ni bari na couleur et laal na côté yépp am na rap am na way thème clash ego thème yaa tout thème yu am importance sax et man sound bu ma ci gën a neex mooy sound bi tudd coono àdduna parce que sound la boo xamante ne ni ku ko déglu di nga ci gis sa bopp sound bi maanaam seetu la ku ko déglu par la force di nga ci gis sa bopp et euh, wéet rek ma may leen tuuti ci li nga xamante ne moo di sound bi di coono àdduna dañ ci xooli un peu rek ma cofal leen ci après ñu ñëw continuer euh, vidéo bi let's go. ñàkk moom la jóg ci àdduna naka jollu jàmm bi sama yàqu bi yàlla la man ne a tàng sa xol te alors gars vous avez ngeen euh, sound eh, intitulé Aduna à vrai sound bi préféré non mais j'adore ce sound je vous le jure sound bi en fait parce que sound la le ni jafé jafé yu nit ñi di jankontel ci aduna lay wax jaar-jaar bu metti xam ngeen dara xeyul des fois fo nga ci difficulté pour après mu neex des fois da ngay da ngay di problème nga mais xana li du jeex fekk na yow rek vraiment day neex. ak euh, tamit di wax yi nga xamante ne ni yàlla da leen a may may alal ñu beew nañ xam ni am am mën na bañ a woy ci àdduna mais tamit ñàkk mën na bañ a woy ci àdduna son la boo xamante ne ni lépp li nga xam ne ñu ngi koy gis ci àdduna muy mettit nit ñi di ko rencontre moom la jël daf ko sound génneel ñu ko et c'est quelque chose boo xamante ni j'ai beaucoup adoré j'ai beaucoup apprécié en moo tax ma ne leen sa sound bi képp ku ko déglu rek di nga ci gis sa bopp benn seetu la rek boo taxawee xam nga seetu boo taxawee da gis sa bopp sound bi aussi boo ko dégloo di nga ci gis sa bopp. donc gars yi kii nag mooy Leuz Kao wax leen seen xalaat ci moom noo leen ko gisee ak leen koy jox euh, euh, comme conseil à vos claviers bàyyi naa ngeen xaar projet bi nga xam ne dina génn sa 5 février 2023 incha allah. donc lii laa leen indiloon tey n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker. et yéen ñi nga xamante ni yéen ngi am application téléphone portable mën ngeen utiliser sama code promo Kenza 221 dina leen permettre ngeen gagner bonus de 200 love you all guys à la prochaine restez bien connectés